pas pour dire que l'accusé a toujours tort, mais l'accusé est euh, euh supposé perdant, euh, en général perdant, surtout par rapport ak surtout bu fekkee ne dafa nekk un homme politique boo xam ne dafa war a euh, poser ay actes par des élections pour éventuellement espérer euh, récupérer le pouvoir maintenant code électoral yoonu électoral la loi électorale dafa dafa dafa dafa dafa am lu mu teg te dara waru koo perturber juste parce que vous êtes un être humain je pense que ni parce que vous êtes un Sénégalais comme les 12 bu gars yi décider li ñu war a décider eh ben on verra bien ce qui va s'en suivre je rappelle juste une chose. Mm -hmm. je rappelle parce que ñoom ils ont leur rythme aussi oui. de travail et puis moi je ne vois même pas pourquoi exceptionnellement ñu def ati ñu defal ko benn nit juste parce que euh, moom dafa war a dem ay élection wala parce que dafa war a récupérer ay parrainage il faut ñu defal ko benn kii benn il faut ñu beral ko loxo loolu baaxul sax par rapport à la loi il faut euh, euh, que euh, la loi fonctionne pour tout le monde mais de manière impersonnelle pas forcément parce que c'est lequel il faut que gars yi tenir compte rek ni Ousmane Sonko doit pouvoir justement assurer ses parrainages mais je crois que c'est pas ça qui ferait le problème parce que bu fekkee ne Ousmane Sonko jàll na euh, ci lii parce que am na am na gain de cause euh, eh je crois que ni euh, war na mën a war na mën a a am temps pour def ko parce que quand ci côté politique c'est exceptionnel il est exceptionnel parce que am na un certain euh, certaine facilité euh, pour récupérer le maximum de de de de, de parrainage et puis euh, assurer euh, euh, sa candidature donc à, surtout d'abord au candidature am au, au niveau de poser sa candidature au moins ci conseil constitutionnel mmh. donc loolu je ne pense pas que ça soit un problème problème bi kay moom mooy lu tax comme ni ko Euh, Demba Ramata waxee euh, cour suprême décidé wul affaire bi foofu kese. Mm-hmm. Euh, cour suprême mënul décider affaire bi foofu kese parce que cour suprême du du du la cour suprême elle elle elle, elle ne elle ne juge pas les faits c' comme une chambre plénière de d' une cour de cassation. Mm-hmm. en, en général parce que foofu la ko gars yi jëlee moom moom day day xool ndax procédure bi jaar na bu tekkee jaarul yoon mu jël ko jox ko beneen tribunal autrement composé wala sax ak ci wàllum nit ñi ñi koy composé ak ci beneen béréb. bu ko neexee mu yóbboon ko Kaolack wala fu ko neex mm-hmm. eh bien pour ñu juger waat ko parce que gis na ni am na ay anomalie euh, par rapport ak façon bi ñu defee procès bi tout simplement mooy loolu yooyu moom du juger elle ne juge pas les faits mais bi mu kasee mën na juger waat euh, affaire bi maanaam euh, par décision bi ñu wax que ni Sabassi Faye motivé wul sa décision motivé ni mu ko motivé baaxul mënoon na ko juger parce que loolu day rentrer dans la forme même mais elle ne juge pas les faits bu jugement bi donc mënoon nañ ko attewaat sur le champ non moom moom cour suprême mënu ko mm-hmm. parce que rôlam du attewaat affaire bi rôlam c'est elle elle est juste que le pour xool ndax droit elle est juste que le droit est que euh, hmm. euh, jaar na mbir jaar na yoon euh, ci biir mais pas forcément mbir yi nan la demee def ak voilà ak yooyu loolu du moom mooy li loolu liggéeyam moo tax mu jëlaat bagage yi jox ko beneen. Euh, tribunal tribunal autrement composé ak ak ci beneen lieu mais liggéeyam du pour juger les par contre bu fekkee dafa gis anomalie wala mu sentir ay anomalie par rapport ak forme bi ñu juger mbir mi eh mun na jël bagage yi dem jox keneen comme il l'a fait maintenant temps boobu nag bon on verra bien ce que ça va donner euh, à à mais je crois que ni. Mm-hmm. bu ñu ci gaawee tamit. dina doon élégance ñu gaaw ci. Euh, ñu bàyyi xel ni euh, bi waa ji am na war nañ ko mën a jox déjà il a perdu beaucoup de temps plus de un mois et demi pratiquement pour son parrainage bu ñu ko nañu élégant tuuti fexe ba loolu mën a am mais peut-être loolu bu amoon sax est-ce xam nga dara dina xew mais qu'est-ce quest que ce serait pas <laughs> am na am na ñoo xam ne mënoon nañu kii at mën nañu mun nañu def at recours oui def recours c'est l'agence de l'État mais en un mot mm-hmm. euh, je crois que bon comme ça mais je crois que c'est foutu pour lui et Ousmane Sonko daal moi je crois que xam nga aussi li may wax ni dafa neexul mais c'est la vérité même ñiy toog nii sax xam nañ ko mm-hmm. il ne sera pas candidat euh, même Bassirou Diomaye Faye ne sera pas candidat Ousmane mm-hmm. Sonko c'est qui il va euh, pour qui il va voter wala qui il va soutenir il le sait pertinemment dans son fort intérieur te yàlla xam na li may wax dëgg la. kon pare na ci daal. non mais xam na ko. Mhm. mi ngi ci beneen position comment il va s'organiser par rapport à son avenir politique moom. Mhm. ak euh, dundin bi muy dund euh, ci situation carcérale boobu. je crois que loolu moo ko gën a intéressant na lay def ba génn ci ko li ko Barthélémy Dias li Coulibaly Aliou jàpp na que ni euh, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye euh, par pare nañ ci par rapport ak même li ñu wax ci procédure bi fi mu jaar ci bu njëkk bi ñu yóbbuwaat ko tribunal de Dakar mu war a demaat cour suprême euh, peut-être bu fe mën naa mu demaat fa sax la ñuy wax parce que bu neexee aussi ñi ñi ñi jugé ba pare bu leen neexee mën nañ ba ci def recours ak yooyu mais bu ñu defaatee recours mën na demaat cour suprême est que loolu du mën a dëggal li Aliou Sow wax que ni finalement pour Ousmane Sonko amaat na euh, ay chance pour mën a bokk. Aliou exprimer une opinion et un vœu mais li mu def waxu ko tegu ko si texte. mais mu ngi may tooñ de. tegu ko nee na c'est un vœu. une opinion seulement. Euh, il a exprimé une opinion forte et un vœu profond chez lui. mais loolu bàkkaar la de. Euh, mais jéggal mais jéggal naa la ko li muy wax li wax tegu ko ci xam-xam. il a parlé pendant cinq minutes à tourner en rond te waxul dara loo xam ne xam-xam la man na xam-xam laay wax te damay ñaan mu déglu xam-xam ndax mu xam. il a parlé du temps temps bi war a. waaw waaw non non non na xam-xam. ndax mu am xam-xam. nit boo buggee am xam-xam da ngay déglu xam-xam. te du ñëw on ne légifère pas mu am xam-xam. waaw. ñëwal ñëwal on ne légifère pas mm. pour un contexte ou un jour. on légifère ad vitam aeternam may wax nii danger bi mu am mooy ñu ne lan Ousmane Sonko sera jugé le 12 au lendemain de la clôture des du dépôt des de parrainages ça veut dire quoi dans cinquante ans un candidat boo xam ni dafa nekk menace pour l'État des structures de l'État peuvent ñoom it def ko li Ousmane Sonko li dal Ousmane Sonko te ba tey justice jëlu ci décision kon ça veut dire que kan moo disqualifié Ousmane Sonko c'est des c'est des structures et des pseudo structures dirigées par des pseudo politiciens dans cinquante ans. waaw dans cinquante ans loolu mooy amaat. mais yow yow non damay non non non tu sais ce que c'est une prescription xam nga luy prescription. déglul déglul ma de waxuma la loolu dama ne. façon boobu mën na répété waat lu mel ni DG wala Sénat par exemple. Euh, tant que léegi de tant que foofu parce que foofu c'est dirigé c'est des c'est des structures dirigées par des hommes politiques qui font qui militent dans des dans des partis politiques. suñu leen mayee ñoom ñu disqualifié alors que. Seul, la, seul le Conseil constitutionnel est capable et à la validité de moom mooy constater les les les candidatures di ko valider ñii jël nañ place parce que Ousmane ko yeggul ci cappaandaw ga ay homme politique ak ay simple fonctionnaire ñoo ko ne doo fa yegg c'est ça qui est dangereux léegi hmm. tey yaa fi ne vingt jours man je parle de faits de dates et de statistiques vingt jours le tribunal de grande instance de Dakar xaar pour juger ko malgré l'urgence de la question alors que bu mambay ñaam bi pour faire l'appel ça a fait jours oui entre kenn mës gis loolu entre quinze à ça dama ne kenn mës c'est ridicule quand entre quinze ak vingt jours doo déglu xam-xam. parce que su ma argumenté ngay ngay joué yow yow yow sa problème mooy su ma commencé argumenté. Mm. non dama dama xam nga man soo damay ne keroog di la déglu. non dama déglu quinze mais su may argumenté non defal ndànk rek dama ne. Mm. ñoo ko wax. waay c'est des dates et des faits. jël fee. dama ne xam nga lu tax ma wax loolu. xam nga lu tax ma wax loolu. y a sur des questions électorales am na ay am na ay recours yoo xam ni le juge siège en deux heures de temps. xam-xam laa koy wax. mën ngay wax loolu yow. dama lay wax. dama ne ma ne loolu moom maa dama ne dama ne déglu waaye ma ne déglu rek dama ne. y a sur des questions électorales. Mhm. où le juge siège si deux heures de temps mu génnee le verdict xam nga lu tax. parce que y a l'urgence est-ce que on peut avoir un tribunal de grande instance sur une question bi mu jël tout son temps ñu dem ñu am. sur les questions de diffamation ñu dem ñu am benn instance boo xam ni du pendant toute l'histoire du Sénégal mhm. kenn mosuñu ko juger en première instance juger waat ko quinze jours après en deuxième instance au moins le dossier fait six mois c'est pas vrai o oh. pas vrai wallaay c'est pas vrai non di nga ko wax ngay waxee exemple dama ne man Doudou Coulibaly nga ne loolu musul nekk nga ne loolu musul am mu ne am da ngay wax damay dama ne après na rek déglul yow bu xam-xam génnee rek nga perturbé wu dama ne man Doudou Coulibaly li ma wax noonu dama ko vivre man sama sama bu njëkk sama bi ma demee bi ma demee pour diffamation bu njëkk bi je parle sous le contrôle de maître Baro qui est mon avocat un an et demi la def sama cassation bi ma dem nii def na trois ans te wootee guñ ko sama cassation. trois ans. y' a d'autres procès xanaa dafa am ay dossiers yoo xam ne yooyu bu demee cassation moom la ñu war a war a gën a gaawal que yeneen yi. Mm-hmm. sama dossier mu ngi def cassation trois ans. waaw mun na nekk loolu mais quand même.